ñi ngi def entretien bi entretien bi ñu ngi koy def ak seen parrain du jour monsieur Massamba Diop monsieur Massamba Diop ancien basketteur du Sénégal waaw sax monsieur Massamba Diop monsieur Sur ce, monsieur Massamba Diop. On le récupère par monsieur Massamba Diop. Monsieur Massamba Diop, monsieur Massamba. Ku ñuy wax le Messi de la zone nord. Mën na koy loolee le top of mind de sa génération. Monsieur Massamba Diop tey moo xewle. Ah ndeysaan match bi commencé na. Match bi commencé na. Attention. Attention foofu. attention. Donc vous rappelez tout simplement que on entend de suivre la, les finales de basket organisées dans le cadre de la réhabilitation du terrain de basket. Vous avez vu que le terrain est en train d'être réhabilité. naa ban la si lépp lu jeunes yi bëgg dama koy bëgg mais là aussi il faut naa ko remercier encore staff rek fi nekk surtout vieux Gora Mbaye ànd ak ñoom Dame ànd ak ñoom Pape loolu yëpp aussi ñu gëm ñu gërëm ko ci vous avez vu. Miss Sénégal bi léegi elle est internationale elle vient d'être convoquée au niveau de l'équipe nationale U17 am na ñaari U17 équipe nationale yu fi nekk. waaw kooku moom elle est internationale U17 elle vient d'être convoquée à l'équipe nationale moom numéro 5 bi loolu yëpp ñoom Gassama ñoom ñoom Pape Diop Camara dañ cee liggéey liggéey ba nga xam ne. loolu ndeysaan xasim sek yaram daw na ma ni yaram daw na dama ñu dëkk ci dëkk bi da koy boole defar dëkk bi day pexe loolu ba tàbbi ci xol nit ñi da ci xol nit ñi moo waaye ku nag ni monsieur Massamba Diop ku am njariñ la waaw arbitre yaa ngi di ñu ngi discuter Seck est que xam ma def naa basket def naa basket waaw. su ko gis ah Massamba Diop sa final bu ko tuddee neex na Massamba Diop final bu mel ni amul laay ndeysaan lancer franc numéro 10 attention. nation. Pampri, Inde, Pantou, 4, 39, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. asalaamaaleykum mbokki internet ñi nga xamante ni si yéen a ngi suivre Thiès Info ak ñi nga xamante ni si ñu ngi suivre Sen tey ñi ngi jàkkaarloo koo xamante ni si kenn dootu ko présenté à travers le Sénégal mais plus particulièrement fi nga xamante ni si mooy région de Thiès am ñu koy woowee sa Kajoor d'autres le disent le Messi de la zone nord man je l'appelle le top of mind de sa génération monsieur Massamba Diop tey bu nu jàkkaarloo ak yow ci final bi nga xamante ni si moom lañ la tuddee nga ñëw première finale bi doxoon ci li nga xamante ni sii mooy EPT ak US ah nga gis ni ëppt e jël na ndam li ci kaw US balaa booba dañ lay laaj tey lan mooy sa impression ci li nga xamante ni si moom nga assister ak parrain bi nga xamante ni sii moom nga doon. Euh, merci dama leen di remercier tout d'abord euh, les journalistes yi déplacé wu ñëw fi tey. et aussi di remercier les organisateurs de ce tournoi ñi am initiative tournoi bi parce que boo boo xoolee euh, objectif tournoi bi da ngay xam ne c'est un peu différent par rapport aux autres tournois parce que li mbébét lii tey mooy dafa am kuñ naan un frère koo xam ni un national daal nañ ko seetaan ci télé yi muy Kabir Pen c'est un international sénégalais basket dëkk Thiès initié defar euh, stade raay bi ñu mhm. ko initié aussi ñii nekk fi nii nekk Thiès nekk fi moom du fi nekk souvent day dem ils ont initié de fédérer les forces woo ci bépp Thiès waa boo xam ni war mën a ñëw participer teg loxo euh, projet bi Kabir Pène jël jël jël jël initié pour mu gën a jëm pour mu gën a jëm terrain loolu rek day day firnde ni c'est Thiès dans Thiès c'est nous dans nous lépp loo xam ne dafay gëmale gox bi kanam rek dañ ci war a dem moo tax tournoi bii nii ñoom ñu organiser mu am benn société boo xam ni te un peu différent des des des autres tournois. au-delà de finale yi am dafa am beneen aspect bu si am mooy aspect boo xam ni ñoom dañuy lancer un appel à tous les Thiessois a tous les bonnes volontés Thiessois de venir les appuyer par rapport à à à ce projet bi ñu am. moo tax ñun tamit biñ ko yëgee ñu wax ñu ko on n'a pas comme tout bon Thiessois. parce que ñun lépp lu ñuy def si àdduna Thiès moo ñu moo ñu ñor sànq maa nga dégg nga naan ma saa Kajoor mais du ma fi nekkaat fii di expliquer fi mu jógee mais ku xam dëgg xam fi mu jógee c'est-à-dire que ñun dañoo régionaliste dañoo gëm suñu dëkk dañoo bëgg Thiès suñu biir xol moo tax tamit bi ñu expliquer projet bi loo xam ne lépp day dem dans le cadre développement parce que euh, le sport ça nous permet de s'épanouir nit booy def sport dangay am santé da ngay am hygiène de vie voilà tu dors tranquillement et tu boo gisee nag nit ñi di sonn di si kii loo ci mën da nga ci war a mën a jàpp pour mu pour mu pour mu jëm kanam quoi moo tax on n'a pas hésité pour venir ici et les assister et les accompagner par rapport à cette belle bi ñu bi ñuy bi ñuy bi ñuy nekk nii. Massamba Diop dégg nañ ci sa biir i wax nga ni ñun dañoo gëm suñu bopp dañoo bëgg suñu dëkk ah Massamba Diop ñu yàgg laa gis ah, tey peut-être basket moo aye. mais gis nañ la tamit fekk na la ci ay yoon yoon nga nekk tamit ci ay final yu ñu la tuddee yu football lan mooy rapport Massamba Diop ak sport. waaw euh, man sport dama see yàgg football la ma gaa gën a xamee football naa nawetaan football naa championnat régional national waaw joué naa ko peut-être ñi ma xam xam nañ ni dama daan c'était un gardien joué si club yi mag plus particulièrement Maaxaan Thiéwo ASC Sob Génaaf te yooyu du club club club yu ndaw quoi ñoom tey ñoo ma ubbil buntu pour ma dugg ci basket ñoo ma ubbil buntu je suivais le basket et je l'aime c'est un boo xam ne dama ko xam parce que bi ngeen bi ñuy nekk étudiant ku xam dikk bu demee final nga dem <laughs> stade Demba Diop da ngay xam ci porter des t dem nekk si kii bi di supporter te boo xoolee bu étudiant yi mobilisé woon ba dem stade am na pression bu ñu lay teg force force dañuy jël kii bi. donc nag ñoom tey biir Thiès ñoo ma am ubbi opportunité pour ma xam la famille basket de Thiès et je pense que c'est commencement la incha allah dañuy ñaan yàlla partenariat bi gën a continuer lépp lu koy jëmale kanam rek ñun dinañ ci dox dinañ ci wax dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci participer incha allah waaw. ah jërëjëf monsieur Massamba Diop ba tey ñuy wéyal kàddu yi tey nga ñëw ci terrain boo xamante ni si terrain bi gis nga ossature bi ni mu demee gis nga terrain bi ni ñu ko defaraatee. mënuñoo wax ni terrain bi lépp complet na mën mënuñoo wax ni terrain bi tout est nickel mais tey bi nga duggee ci terrain bi ana lan nga xamante ni si moom nga gis ci sa bët loo xamante ni si lu nu war a yokk la wala lu nu war a defaraat la. waaw terrain bi tey boo fi duggee nga gis mobilisation bi fi am guddi la y a y a beaucoup de gens ñoo ngi nii di toog di xaar nga gis aussi environnement terrain parce que fi ma toog sànq rek am na ku toog sama wet naan ma non bi ni nga ko commencé defar nii. ren moom damay seetaan ci match basket yëpp l' environnement ça parle et l' environnement attire parce que nit pour mu bëgg dara ba sa biir kër sax ah pour nga am envie de manger il faut que mu am benn cadre de vie bu bu bu tranquille kon donc ñoom effort bi ñuy def nii ça ba permettre au gens qui vont venir wala ñenn ñi dégg ko il vont venir ici pour xool te aussi bu ñu ñëwee gis environnement bi changé cadre de vie bi changé dina leen permettre ñoom ñëpp ñu gën a bëgg sport bi xam lan mooy basket. parce que Bass dafa noble quoi boo xamee dëgg di ko seetaan man Bass dafa noble pratiquement les deux sports que je regarde à la télé mooy football que j'aime bien ak euh, ak ak basket. vraiment ñi daal on les on les remercie on les encourage te dañuy ñaan yàlla mu jëm si kanam et les autres ils n'ont qu'à essayer de copier sur ça pour que affaire yi gën a neex gën a kii parce que boo xoolee famille Thiès moo fi daje ay ASC Thiès am na équipe am am na équipe EPT am na Don Bosco bokkoon na si tournoi bi yeneen équipe yeneen équipe mais il faut que mu am finaliste et il faut que mu am gagnant et aussi ñi ngi féliciter de passage léquipe bu euh, EPT c' est des polytechniciens boobu samay samay entre guillemets samay collègues lañ et aussi l' équipe de raay waaw ñun raay football lañ gënoon a bëgg mais boo nee raay rek c' est c' en kii et aussi l' équipe senior yi war a démarrer leur finale ASC Thiès ak raay ñu neen la dañuy demander fair play que le meilleur gagne et on va féliciter à au vainqueur. kon boog monsieur Massamba Diop ñu ngi lay di la sant ci kaddu yi yi nga rotal ci ci site internet yi di CN24 ak Thiès Info kon ñu ngi lay jox dig daje beneen yoon incha allah.